mbokk yi mbokk yi ñoo del seeti comme niñ ko baaxoo de defee saa su waxtu wu ne suñu déggatee wala ñu gis lu dal ci diine ji wala lu dal ci yoon wi tey ji nag déggati nañ loo xam ni mën ñu cee bañ àddu ndax day loo xam ne buñ ko noppalee ëllëg la ñu lay suñu borom laa xamul mbokk yi lañ la ni lay yàlla ëllëg bu ñu noppalee lii mbokk mi xanaa ñu jiite ay réew te bon bëgguñu diine doxuñ ci diine waxuñ ci diine lu baax wala lu jag loola doy na waaye nag amaa di gàkkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moo fi indi diine ji nga xam ne ñun ñëpp moom la yaakaar kooku na duñ ko may kenn moom mbokk yi politiciens yi laay wax politiciens yi laay wax su ngeen dee politique yam leen seen politique seen politique yéen a xam saltere ñaaw na xisaw na bon na xeeñ na kenn bëggatuloo nekk politicien te lu baax la woon lu jag la woon lu daa doxal askan la lu daa doxal famille la lu daa doxal réew la mais bii moom kenn bëggatu ko tey jii nag ki mën a duut baaraam mooy Moustapha Diakhaté Moustapha Arit Moustapha am na lu mën a ruse ngir tur wi am na lu mën a ruse ngir tur wi mais yow tur wi nga yor xamoo ko sa wax bari na te wax bu dee bari rek juum yàgg bari te njuum te bu bari ak tey fay doon Moustapha Diakhaté Moustapha kii nga wax ni sa baay gën ay baayam tuub naa man sax ci ba jàll gi ma ko jàllewaat tuub naa ci loolu moom la sunu borom waxaat ni wa lakum fi rasulillahi uswatun xasana uswatun xasana amuleen référence amuleen royukaay ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa mooy ki nga xam ni moo gën ci ñun sunu ndey mu gën ci ñun sunu baay mu gën ci ñun ku nu am moom yonent bi sallallahu alayhi wa waaye nag lii nga ko wax yàgg na koo dégg waaye ña ko doon wax ñun yaakaaroon ni yow di nga wax lu mel nii ndax alquran nee na ko maa yuqaalu laka illa maa qad qiila rusulu min lu ñu la wax rek waxa dañ ko yonent yow la fi jiitu yonent bi sallallahu alayhi nga ni ay waajuram say waajura leen gën tuum naa ci baat bi loolu dëgg amul rafetal amul du dëgg xawi sutura si yonent sallallahu alayhi wa sallam képp ak koo mën a doon ëllëg yàlla di rax sa digg a doon nag yow yonent sallallahu alayhi wa sallam ay waajuram nga ni déewuñ ci lislaam dëgg la xam naa da nga koy dégg ren di jàngoo xamoo ko mais ñoom ci fettara lan wàcc liggéey fitra mooy ñi nga xam ne diggante seen diggante yonantu yàlla yónni ko fi yàlla yónni fi yonantu diggante bi waajur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di dund amuñ yonantu ñoo ñooy ahlu fitra bokk te Abdullahi mi jur yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam Abdullahi bi mu bi mu wàcc ab am na boroo xam ñu wax ne fukki at juróom-ñett la nga xam ne ay atam boobu mënut ëppul ñaar fukk Aminatu fukki at juróom wala fukki at ñett jàpp fukki at ak la Amina am yaayam ñii est-ce que tal nan leneen te ñoom fekkan ni sax amuñu at yooyu sax teewul ci fitra la judd bu loolu lépp boobu tam sax ngir Muhammad mii mooy sunu yonent donc war nañ koo warmaal ba warmaal ay waajuram su loolu lépp amutan sax laa wax Muhammad mii rek Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy sunu yonent rek war nañ koo warmaal ba warmaal ay waajuram mais Moustapha ab yéeg bu dee romb ay xob jël la ngay bëgg a ñëw dafa mel ni dañ lay dégg fan yi ci télé yeeg rajo yi ngay tëltëli yow problème Ousmane Sonko ak Adja Sarr seen problème ñoom ñaar lan moo ci andi yonant bi sallallahu alayhi wa sallam yoonam newu ci bu ngeen dee politique yow su fekkee da ngaa bañ Ousmane Sonko wala nga mere ko wala nga een ko wala ngeen am aw dig li jëtti ko yaa ngi moom mais nga bàyyi sunu yonantu sallallahu alayhi wa sallam du ñu nangu ko fawee te nag réew mii nag lépp lu fi dal nit yërpal sa yër ko teg lépp lu fi dal nit waaye nag wa kasaalika jaxal naa fii kulli xariyatin akaabira mujrimiha yër ko moom yaakaar naa ko wax wuy woo gis waga boo bandi boo gis ab politicien alxuraan ko wax te itam nag lu leen neex wax leen ko waaye bis a ngi ñëw ñu wax ba mu xóot ñu suul leen ci dafa mel ni da ngaa amul métier topp plateau yi topp télé lu la neex wax yonent sallallahu alayhi fan yi maa ngi la dégg nga def benn débat da ci dal ci kaw kilifa yi diine yi bala ma jooy jàpp na nga ni murit la yow war ku ku mel ne yow sëñ Tuubaa soxlawu ko ndax sëñ Tuubaa képp ku bëggul sangam ba képp ku fonkul sangam ba fonkoo ay waajuram du fi te ñoom nenn te moom boo yëree ay xasaa itam yu bari sax da cee wax ni aj daadu xool kurama kon weddi na sa wax ji nga xam nga ni xam nga li nga wax du dëgg kon ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam Sëriñ Tuubaa moo ay maamam danoo tedd dan danoo mag am na fu wax sax ne laa laa zaw xaa saw xaa saw aw làq nan mbooleem luy kuram luy karim mbooleem luy xasba mboolem luy majd Sëriñ Tuubaa wax na ko ay maam yonent sallallahu alayhi wasallam làq nan ko li ko dalee ci Abdullah mi ko jur ba ci àddina ñaar fukki lu maamam amul kenn ku ci mës a li ko dalee ci Abdullahi mi ko jur ba ci Adnaan juróo ñaar fukki lu ma am Adnaan mi nga xam mooy ñaar fukki lu ma am amul kenn ku ci jaamu xërëm kenn laa ku ci jaamu xërëm ngay wadd di dal naa yow ko xam sa waajur kan moo xam sa baay kan moo xam sa ndey kan moo xam sa kan ak kan ak kan ba ngay wadd di dal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Sénégal gépp ni tekk lii xam ne xalifa yi diine ñoo ci war na gaa wax yonent sallallahu alayhi rek lañu am te Ousmane Sonko mii nga diine bi ñu demee bi ñu dalee ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem politiciens yi nekk Sénégal moom la ci gis mu ñëw place de la nation kara bi ñuy def loolu defe naa ci benn vidéo moom doog la ci gis ci politiciens yi kara mu teew fa ñun bu fekkee ne bëgguñu ko ngir politique sax war nañ ko bëgg ngir loolu mais bu ngeen di politique ngeen politique seen politique yéen a xam mais nag Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak mag ñii ci réew moom muy ñu kenn ku ci duut baaraam leen laal di nga nu laal rawat Jaxate mu Moussa Jaxate yamal ci kudd ñu roof ci gayet yëf yaa ngi bëgg a ëpp bu fekkee plateau yi dañu a yomb ak rajo yi fa tax fu ngeen ne tëltëli yow sunu kilifa yii du say morom ba nga naan senegal maa ngi leen di gis bu ñu waxee yonent bi nanga mën a yow li nga wax yonent bi comme sa wax yonent bi la am yow bu fekkee tey réew mi diina lay attu ak sariya ba tey rey na la man nag bu la ñëpp jéggale jéggalu ma la ndax kenn ku ne sa bëgg yaa ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa lu say Sëriñ Tuubaa nee na lu am moo ma moo tax mu wax ni billahi la si laa ilaa ilaa hu xayaati wa mamaati xarakaati wa sakanaati maa sidna muhammadin giñ naa ni samag dund samag dee samag yëngu samag dal lépp man seexul xadim jox naa ko yoonu salaay salama daal ni muhammadun nuuru xalbi astaniiru bihi wa rufqati ahlu badarin mu detal omar yi mu ni bi sallallahu alayhi mooy sama leer xol mooy ki may niital fu ma jëm mu ni taman seexul xadim waa ahlu badar ñooy samay àndandoo ba yobal xeer akbar mu retal omar yi diir sama dund bokk ñoom laay àndal suñ tubaab ni mu bëgg yoon saat àgg ci ni bu ko séena muy ñëw day lal ak dëgg ne ci yoon yi day lal ab lexam yonant bi jóge ci dëgg jam leexum seexul xadim ngir dëgg bañ a laas yonant bi salaay salaam nga jóg lu la neex nga wax lu la neex nga def ñu bàyyi leen rek seen politique yu ñaaw yu bon yu xesaw yi nga xam ne yàq ngeen réew mi kay yem ne ci loolu yam leen ci loolu mais nag yonent bi sallallahu alayhi lu leen may ngeen kon ko def seen a munasuka comme neex loo neex yàq jàngu leen xamu leen yam leen ci li ngeen di xam politique ngir xam wax lu dëgg ngir xam ay naar ngir xam yam leen ci loolu mais nag yonent bi sallallahu alayhi moom du ñu may kenn ku la ci kawam ndax mooy sunu lépp te lu fi waaye am ko tiitaroo yonent bee la ko jox ak koo mën a doon ndax ci moom la koy sunu borom jaare mboolem yonent yi fi jaaral kenn ku ci nekk bàkkaar ba nga def ba nga ko defee Serigne Touba bind na ni ci daraja yoon salaatam ci nga ñaan sunu borom mu jéggal la kon kooku kenn du moom kon Moustapha Diakhaté përeeguñ ci yow dell andilaat lu gën a leer ci yonent salaatam ba nga xam du sa moroom